nun bi ñu koy def dañu amoon ay nit yabal leen foofu ndax dama tànnoon ci biir groupe bi ma président Mamadou Lamine Diallo Toussaint Manga Cheikh du Mbacké ñu dem Mbour ñu toog waxtaan am point yu ñuy d'accord muy point yoo xamante ne euh, gis nañu ne amul ngaañ pour réew mi euh, amul leen loo xam gis nañ ci jafe-jafe euh, bi ñu demee ñoom jàngat point yi nga xam ne ñoom d'accord nañ ci majorité bi d'accord ci point yooyu ñu indi ko tey ndax xam nga amatuñu premier ministre kon bari na ci ay moo ak i article ak i texte yoo xam ne dafa war a génn ci biir kii bi yu mel noonu ak commission yeeg yooyu euh, bi ñu demee ñoom waxtaan la ñu d'accord rek la ñu fa tënkee rek bi ñu ñëwee rek loola nun daf ñuy daal di engagé loolu moo waral nun ñu voté ko ndax nun ñoom ñoo ko àndoon liggéey bi. boo gisee tey député bi ak yelef bi nga xamante ne moom la ko askan bi jox ndax loolu noonu maanaam bu ñëwee ci assemblée ndax loolu am na fi yooyu yëpp nekk na ay points yu bari yoo xam ne war nañ ko càmbar war nañ koo xool euh, aussi loolu yooyu yëpp war nañ koo xool daal danañu xool lépp daal ndax bu ñu nee député rek ñëpp ay député lañ d'abord wala ngay nekk président wala lu mën a doon député nga ca député aussi am na daraja bu ko askan bi jox ndax euh, xam ngeen constitution bu Sénégal ni muy doxee à part président de la république ñëpp xam nañu ne président assemblée nationale mooy ki nga xamee mooy deuxième personnalité ci ab député la kon aussi député yi war noo xoolaat bu baax a baax euh, doxalin yi xoolaat lu bëree bëri lii am assemblée nationale ndax euh, askan bu ñu la wóoloo indi la fii aussi am na noo war a doxee yu ci bëree bëri daal bëri na xam nga bëgguma comme àggagun ci bëgguma li ñu nisar lépp ma teel koo wax ngeen di am kii